gërëm maa ngi tudd Mimi Diop dëkk kër bu mag di taalibe sëñ Touba taalibe sëñ Saliou Mbacke dëkk kër famille Amar mhm. dajale fii en fait dama nekk ak samay rakk mhm. samay frère samay cousin ci secteur bi mhm. waaw ñu xool ne suñu secteur bi am na lu mu loolu moo ñu fi dajale woon tey pour xool monsieur le ministre nan lañu jàppale jàppalee fi ci emploi bi ci ay projet yu bëree bëri ñoo xam ne dañoo bëgg ministre jàpp ci bu baax a baax a baax a baax te yaakaar nañu dina si jàpp incha allah. Hmm. ak lan lan lañ fi jeune bi jeunes yi am na ñu génn ci wàllum emploi. waa am ñu génn ci sécurité am ñu. génn ci sécurité lumière bi. Hmm. emploi projet. Hmm. loolu yëpp bëgg nañ ministre jàpp ci bu baax. parce que dañoo am jeunes yoo xam ne dañoo jàng ba pare diplômé amuñu liggéey. ñuy chômer. waaw ñu bëgg tamit ñu financé ñu surtout suñu famille bu baax a baax a baax bëgg nañ loolu yëpp te yaakaar nañ ko tamit ci ministre waaw lan ngeen di xaar ci ministre Dame Diop li ñuy xaar ci ministre bi bëri na parce que xam nañ ne jàmbaar la nit ku baax la Sénégal doo ko ñor ak njaareem lu bëree bëri bëri li ñuy xaar si moom daal bari na trop trop trop trop mu mel ne dañ leen fàtte yéen yéen ñi dëkkee ci gox bi la waaw dañu fàtte Eh, lan moo waral fàtte boobu. xamuñ ko. da ngeen yëngu ci politique. wala ngi yëngu ci politique parce que ku ànd ak monsieur le ministre 2007 ba léegi. Mhm. man maa ngi yëngu ci politique. parce que man bi ma dalee yëngu ci politique yàgg na trop te ñoom it bàyyi ma lu ma mës a woote mu neex leen ak mu naqari leen jóg nañu ànd ak man mais dañu fàtte dangay wax dara sax kenn du ko lijjanti ñu xaw ñoo négligé trop xaw ma dañ ñu xawoon a sous-estimé trop ndax suñu noppi waay wala suñu yaro wala suñu taalibe. moo tax tey lii ñu am fii tey am fii parce que waru fi woon am. daal may wax monsieur le ministre nañu jàppale ndax ñun amuñ lu dul moom amuñu lu dul moom nañu jàppale suñu secteur bi li ñu bëgg mu defal ñu ko incha allah ndax ñun bu ñu sañoon élection locale yi mairie ñu fal ko mu nekk maire Ndiarème gii te loolu mooy suñu mbébét te loolu lañ bëgg incha allah kon nañu jàppale ñu jàppale ko war ji faram ko laay. waaw